salaamaaleykum mbokku internet waaye Dakar Midi ñu amati mbégte ak kontaan ak yéen nee la li fi passé fan yi nekk na loo xamante ne tey lu doya doya waar la ba tey ñu ngi def suñu beneen reportage boo xamante ne ci jeunesse Sénégal ak askanu Sénégal xale yi ku nekk def li nga xamante ne tey wax li nga jànkonteel ci ñetti fan yi. ñetti fan yi nekk ñetti fan yi dootuñu fàtte si àdduna ñetti fan yoo xam ne ñetti fan yi métti la woon di jaale ñi nga xamante ñoo si décédé di leen jaale yàlla na yàlla yërëm leen àjjana maa la siyaare kilifa gi lay fay di la ziar di ñu gis fan yi passé trois jours yoo xamante métti na trop ci li nga xamante mooy jeunesse su Sénégal tey lan nga mën a wax ci ci loolu waaw métti na ñi ko def yëpp ay morom lañu te suñu réew lañ ko defee mën nañu manifester mais leen bañ a yàq parce que li ñuy defaree yëpp suñu alal la ëllëg ndaw yi koy yàq ñooy ñoo fi doon président baa ñu doon ministre baa ñu doon leneen ak leneen kon léegi nañ ko rafetal ci côté ñi ngi blessé maa ngi ñaan yàlla masalu leen di ñaan ñu tane ak jàmm ñi nga xam ne faatu nañ ci yàlla yërëm leen xarale leen àjjana du wax ñu dal xam ne nguuru yàlla rek moo du jeex ñaari adversaire lañ mooy Sonko ak Macky Sall yàlla mooy xool ku mu neex jokkal na kii ndam li mais bu kenn yàq bu kenn toj bu kenn rey bu kenn agressé bu kenn dara xoolal demal li am sama koñ liberté 2 xam nga ne ñaaw na benn waay bu ñu doon waaj a wàcc ñu ci place am jël sacoche presque mën na lu ma 300000 500000 ay agresseur loolu ñuy def dafa ñaaw quoi ne manifester mais bu ñu jaxase bu ñu yàq bu ñuy def kii di ko ñaawlu nag ñaawlu naa ko torop torop réew mi ñu ñëpp a ko moom fii réew mu jaamu la réew mu El Hadj Malick Sy El Hadj euh, Baye kon yàlla ñi moom rafetul daal. asalaamaaleykum maa ngi lay nuyu kilifa bi. maa ngi lay fay. di la laaj tur bi nan la. Euh, Ousmane Ndiaye la. Ousmane Ndiaye euh, fan yi gis fii loo xamante ne tey ay manifestants yu métti métti ci trois jours yoo xamante ne tey lu bari yàqu-yàqu am na ci gis ni ñu ngi demit démb ki nga xamante ne tey mooy Ousmane Sonko mu génn def discours ki nga xamante ne mooy président Macky Sall mu génn def tamit discours tey en tant que Sénégal en tant que citoyen tey ban jàngat nga ci am. waaw jàngat bi ñu ci am euh, donc comme euh, sénégalais yëpp ah parce que li fi xew ñu ñëpp ko dundandoo ñu ñëpp ko gis quoi donc euh, metti woon na trop donc ñun ñi nga xamante ni sax nekkuñu woon ci xeex bi donc yëg nañ ko parce que dem nañ ba mënatuñu woon a xëy liggéey yi pour yóbbul suñu njaboot donc metti woon na trop daal donc discours président nag moom vraiment dañ koy rafetlu donc parce que ñu ngi ko doon xaar daal et puis allah daal discours bi rafet na trop parce que Sénégal daal. daal jàmm lañ fi soxla mm-hmm. waaw jàmm lañ fi soxla li fi am nag moom metti na nu metti na bépp sénégalais boo xamante ni euh, donc am nga jom am nga jom mm-hmm. donc euh, ñeme nga ñafe liggéey pour sa réew jëm kanam donc képp koo xamante ni daal gis nga loolu xew dalay naqari quoi parce que ci réew boo xamante ni que dafa metti covid bi ñëw yokk ko donc euh, ñu ñëw dolli ci lii yàq ay bërëbu jàmbur ay station yu jàmbur ak yeneen ak yeneen ay sénégalais yu bëri au chômage voyage donc yaakaar naa ne amul benn sénégalais boo xam ne war nga bëgg nga sa réew loolu di la neex quoi. waaw ñu ngi leen di ziar bu baax a baax. di leen fay la. man Idi laa tudd Idi Diallo. Idi Diallo waaw Idi Diallo ñu euh, ñetti fan yi passé. réewum Sénégal yëngu na lool. yàq yoo xam ne fii manifestant yi bari na. Mhm. ñu bari ñoo xamante ni tey am na ndaw yu si ñàkk seen bakkan ñu leen koy jaale nag bu baax di ko jaale seen i famille. di ko jaale tamit sénégalais yi. tey Idi euh, en tant que citoyen tey euh, ban gis-gis nga ci am. bon man gis-gis bi njëkk bi ma ci am. mooy gis nga luy dëgg du ay fen ndax population boo xam ne kenn joxu leen alal kenn joxu leen ñu lekk kenn joxu leen ñu naan kenn forcé wul leen li ñuy def moo boobu ñu ngi xeex ak ki fi nekkoon di ñu xoqatal di ñu jaay doole parce que on est dans un pays démocratique te ku nekk sa àq ak yelleef da nga si war a jot ba mu mat sëkk du nekk si dëkk boo xamante ni tamit daanaka li ko taal diggante góor ak jigéen la bu kenn fekkewut te ñi ko arrêté tam amuñu ci woon benn preuve waaw ñun faraw ñoo nguur faraw ñoo Sonko on est des citoyens ñun citoyens yi ñoo génnoon di revendiquer li ñu naqari parce que lekk amul naan amut nit ñi sonn nañ lool lool lool lool lool mais nag ginnaaw yàlla def na ci jàmm li si des mooy ñu am ci ay jàngat ba ëllëg lii dootul fi amati waaw ñun nag ñu ngi fii marché Liberté 6 lañ nekk bon gis nañu seen i ñëw fi manifester wu taal jéem a taal Auchan beeg yëpp mais ñun personnellement ñoo doon défendre loolu. parce que ñu doomu réew ñoo fay liggéey mais nag ginnaaw li am am na ba noppi. li si des nag mooy ñëpp nañ toog waxtaan ak xel yi. waxtaan ak population ñun ñëpp suñu biir. waaw ñun nag ñu ngi si marché bi. waaw. asalaamaaleykum kilifa gi maa ngi lay yi maa ngi lay siyaar bu baax. di la laaj tur bi nan la. maa ngi tudd Abdoulaye Faye. Abdoulaye Faye euh, ñu gis euh, ñetti fan yi nga xamante ne tey mooy réew mi Sénégal yëngu na lool yàqu-yàqu yi bari na am na ci sax ñi nga xamante ne tey mooy ay décès di leen ñaanal yal na yàlla xare àjjana di jaale seen i mbokk tamit Abdoulaye en tant que Sénégal en tant que citoyen noo gisee tey jamono ji Sénégal. maam yëngu na lu jëm mënoon naa ñàkk waaye dafa nekk nit bu sësee rek sës na. ñu béy dañuy jàpp ne maanaam yëngu Ousmane Sonko moo tax nit ñu yëngu waaye c'est que nit. lépp lu yëngu la dafa da koy yëngal dafay jaare am rek waaye nekk loolu moo tax ñu jóg nit ñi maanaam coono moo leen jàpp coono gi ñuy dund lu mat at te gisuñu maanaam gis ñu ñoom mënuñoo wax ne coono gi ñuy dund lii ko waral lan moo waral yëngu-yëngu yi mais am na ñu bëriñ doon yëngu tey koo si tey na ko lan moo tax nga yëngu mën naa wax ne xamu ko loolu lu mu la te lu ma wóor la li am nag mënoon naa ñàkk mënoon naa ñàkk ndax nit ñi bañ leen bañ dalee affectir yàgg nag comme dina leen njiit njiit réew moo xam te ne maanaam sës rek mooy tax mu doo xam li population bi wax moo tax li am am te nag départ la rek de ndax Sénégal dafa tàmm benn jikko maanaam lu muy def maanaam du ko def benn yoon mu neex ñu wax déedéet ñam naa ko maanaam amul fenn Sénégal ci nga lii nii daal ba daal ba fi ñu de troisième mandat bi. fa mhm. nga xam ne kan mooy sénégalais dëggantaan. xam ne fii ñun dañoo am benn problème ñun suñu njiit yi xamuñu suñu njiit dañuy gis ñu dem mais xamuñu nan la ñuy fonctionné xamuñu ko sénégalais moom dàq mu fi mais bu jógee rek sës na te nag li ma naxal sénégalais bu jógee bu jógee xamatul toogaat. bu jógee xamatul toogaat caaxaan taxu koo toogaat. dëgg noo jàngatee discours bi nga xamante ne Ousmane Sonko def na ko démb nii ngi ni démb ah, noo jàngatee discours boobu. waaw rafet na. mooy lii waar ñun ñëpp loolu lañ doon xaar man maa ngi doon fu ma nekkoon sax ñu ngi doon a Sonko bu génnee du def discours mais yor la mu def discours dalal xelu askan bi dalal population bi wax mbëbëtam ci réew mi ak yeneen ak yeneen. waa maa ngi koy rafetlu bu baax a baax discours bu rafet la. président Macky Sall def discours. ñu xool que mu indi leçon moralement ah, li nga xamante ni tey ah, couvre-feu bi tamit ñu yokk ko ah, minuit tey ñoo jàngatee loolu en tant que yow tamit nga xam ne citoyen tamit xëy na heure bi mun ne ko zéro yoon doon empêcher say liggéey. waaw couvre-feu bi moom su ma mu dindi ko mais xëy mu defaat ko moom xëy na daf ko yóbbu ci côté feebar bi. parce que couvre-feu bi pour mu jeex il faut mu dépendre ci corona bi. Mm-hmm. mais minuit ba 5 baax na. ñi nga xam ne seen liggéey guddi la comme ak yeneen. ngeen mën a liggéey ba waxtu boobu ñu wàcc mais maa ngi ñaan yàlla jeexal ko fi discours moom rafet na moom parce muy président de la république bu gisee yenn yoo xam ne sooxe na ci dëkk bi il mu dafu euh, message à la nation dalal xelu population bi ni ñuy mën a bàyyi xel ci lépp. waaw merci maa ngi leen di jaajëfal di leen fay bi nga xamante ne tey euh, président Ousmane Sonko génn génne na ko démb. discours bi moom ku ne. Ousmane Sonko ni mu waxee noonu nag la war a waxee nga Ousmane Sonko bu génnoon rek nooyal fi lay jaare yàq li mu liggéeyal ñëpp Macky Sall tam liggéey noonu a wax naa déception muy Macky Sall waxu ji dafa woon bu yàgg la woon naa wax mm. depuis jeudi la woon wax bu waxoon depuis jeudi mm. ko ne lay ñu lay ñu lay dem mm. Ousmane Sonko nag fa la benn gerte fi mu taxaw fa la taxaw bu xawee xoq tuuti rek fi ñëwee fi ñu jaar ne lañ koy jaaral man nag sama yoon nekk ko ci pour mais damay wax li ma xam moom laa moom laay moom laay. Ah, ah, ah, mu def. waaw na génn donc ñu ngi koy rafetlu mais am na loo xamante ni aussi dañ ko ciy corriger parce que bu ñu dégloo discours am moom ba tey dafa mel ni mu ngi ci lim nekkoon oh, alors que ñun soxlawul loolu quoi parce que ñun ñun amuñu lu ñu gaañ quoi donc euh, man mii ma wax ak yow so naa soxna donc di jógee Malika di ñëw fii xam nga comme loolu amoon noonu bu continuer da ngay continuer di toog donc kon war na mën a woote jàmm moom it aussi quoi parce que euh, discours am bi ma déglu moom bàyyeegul ba léegi quoi bàyyeegul te soxla nan mu bàyyi parce que réew mi jàmm lañ fi soxla. jàngat nga am ci discours bi nga xamante ne Ousmane Sonko euh, jël ko jëmee ko si li nga xamante ne mooy président. waaw discours bi li ma si jàngat rek mooy discours discours ku fipp. Mhm. waaw koo xamante ni dañ na pousse ba ci miir bi. Mhm. mu leer na ni boo avancé wul sama kanañ si xottu gerte. Mhm. parce que nit ki tam boo koy tuumaal da nga koy tuumaal ci loo xamante ne lu leer la lu ñëpp teg seen bët mais comme que moom nag am na sañ-sañu waxee nii te comme li mu wax rek dëgg la nit ki doo ko accuser terroriste accusé accuser ko rebelle accusé ko violeur accuser ko kuy def coup d'état mu taxaw di la déglu di la seetaan faw nga seetal sa bopp waaw waaw ah, te te faruñu moom faruñoo moom parce que bon li mu def mais ñun képp kuy xeexal dëgg du ndaw comme ñun ñun ñu ngi sa gannaaw waaw bëgguñu président buy topp ci ginnaaw tubaab yi di yàq suñu réew yi loolu il faut que ça cesse. mais président def na discours moom tamit génn euh, wàññi li nga xam te mooy jëm si ku fukki affaire yooyu. waaw par rapport ak discours boobu. si sama xalaat bu gàtt. pour man discours boobu dafa yéex ba mu ko waree def defu ko. dafa yónni a ndawam ñoo xamante ni. man foogoon naa ne ñoo ko gën a intelligent sax mais vraiment ministre de l'intérieur am bi bu dee mi ngi Macky mi ngi may dégg bu yee bu dee jàmm la bëgg pour moom ak ay njabootam na ko dàq na ko dàq parce que il n'est pas responsable waaw fii amul ay force occulte fii amul ay yi muy expliquer yooyu yëpp ñun on est au courant de tout waaw nervi yi ñuy wax seen biir lañ nekk waaw Barthélémy wax na ko waa PS yi lañ léegi nag président par rapport ak li mu wax ñun sincèrement déglu nañ ko bu baax a baax mais ñun niñ ko laaj du ay affaire de ceeb ak ay dëwlin mm. nañu létt mu la ñu firi bu dee affaire de troisième mandat bi nag da koy leen leeni mm. ñu dañ koy wax dëgg bi du am du am te bu bëggee nguuram neex nag génn par la grande porte mm. na ko leeral nit ñi mu leer ci seen bopp pour nit ñi mën a avancer. merci beaucoup je vous en prie. et puis ndaw yi aussi euh, message bi ma leen di lancer mooy ñu nangoo liggéey bañ di xeeb métier quoi parce que métier kenn du ko xeeb parce que li ngay gis nii euh, ñu ci bëri li ko waral mooy dañuy xeeb métier dañuy xeeb métier il faut ñuy dem di jàngi métier. ku ci amul métier aussi tamit li lay jox pour nga liggéey nga bañ ko xeet nga nekk ci ba yàlla ñëw quoi waaw loolu laa mooy lu ma pour ndaw yi quoi. lan ngay conseiller Sénégal. léegi xeex nañ dañoo war a xeex jeex na nañ dem toog liggéey ji jéem a fexe li ñu li ñu li ñu li ñu ñàkkoon ci ginnaaw yéen ko retraité waat xeex bi jeex na nañ dem nañ dem fexe liggéey ji nag mu jot tàkk jërëjëf